si si si si biir match bi avant fin du match ba raté naa ñaari occasion c'est c'est la vie parce que bëggoon naa libérer équipe bi avant mais par la suite on a gagné tiro bi ba c'est bon tout le monde est content ñëpp content nañu. noo gisee tey supporter nu leen taxawoo. ba ñun xalaat xaaroon nañu lii parce que xaro nañu lii xamoon nañu peuple Sénégal suñ ñëwee fii stade bu bees bi ñoom ñëpp daan ñëw. dolli ñu doole aidé ñu voilà gis na loolu et kontaan bu baax ci ñoom. bu baax sax lool beneen beneen affaire la man dama demoon contrôle dopage maa ngi doogaay ñëw. <laughs> Ismaël waa Brésil man jubilé wu ma. Ismaël Ismaël waa Brésil waa Ndar ñëpp loo leen wax. waa maa ngi leen di bëggee ñoom ñëpp di leen ziar.